seen chaîne bi di Diawfal Fara di ko tax juk moy xam le serigne bi xam le ñangalem serigne bi bu ngeen bëggee abonné ci Diawfal Fara dem leen YouTube ngeen bind Diawfal Fara bu ko defé ngeen dal di bëss cloche bi Diawfal Fara ñoy ñaanal sëriñ Mountakha Mbacké bashirou mu yagg fi lool te ànd ak wér. wax ji du gudd fi tam tàmbalee rek moy ñaanal suñu mag bu baax ji ñak tay serigne serigne Mbacké Cheikh abdou Ahad doonoon jambar lool. ci liggéey Serigne Touba ginnaaw bu ko Cheikh Abdoul Ahad Mbacké juree bu ko xam ku ne xam ne génn ca way juróom ay jikko jàmbaar gi ak fit yi ak fulla ji te loolu jékkul ba léegi mu def ko xam ñu ngi ñaan suñu borom ko leer leeram te suñu ci barke ba di jaale itam gouverneur way juróom ñu ñàkk moom itam yàlla daf ñu am yéen ñëwoon suñu borom waaye xataa bi tax ñu mujjoon fu ñu ne waaye comme yàlla def na ñu agsi ba ci moom ñu ko koy jaaree di moom itam suñu ko te ñuy waajal nag day bis boo xam ne ndigalu Sëriñ Tuuba la mooy màggalu Tuuba di bis bi gën a rëy ci ñoom ñu yaakaar Sëriñ Tuuba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daa wax ne mooy suñu fête d'indépendance noonu la ko daa waxee kon bis bii lépp lu ñu am rek ci lañ ko am mooy bis bu rëy Sëriñ Tuubaa santaane woon ko digle ko ne na ko ci ñëpp sant la yàlla suñu borom ci bis bii yàlla def nag ci ñaanam nga ak liggéey bu tedd ba màggal gi dem ba agsi fii ndax bisu ak pay la ndax na mu ko digle woon daale ci dem ci daale taalibe bi yëpp nag seenu xeer tax màggal gi ak fii tey ba waxatuma la lañ ci yaakaar te mooy li ëpp solo te mooy li ko tax a di wàllu ruux lañ ci yaakaar ëllëg suñu digg yàlla lañ ci yaakaar ëllëg suñu digg Sëñ Tuubaa ci pay waaye ci wàllu àdduna mu dem ba nekk li ëpp doole ci waxuma la réew waaye ci Afrique wala li ëpp doole sax ndaje yi ëpp doole ci àdduna mëne mëneesu ko ay bari muy duggal lu bare bare itam ci wàllu koom-koom muy loo xam ne réew mépp lay jëriñ kon li ngeen tudd tey relancement économique màggal Tuubaa moo moo ci jitu ndax mën naa ne li ëpp ci nit ñi wala société yu mag bu ñu amee lu bëgg jaay dañ koy xaari màggal ngir barkeelu gis ñu kon nag yàlla def Sëriñ Mouhamadou Mountakha duñ ci sañe seq benn jéego ci lu dul ndigalam ab taalibe bi itam du laaj ndigal day toog bañ jox ko kon ñun li war mooy toog di xaar ndigalu sëriñ bi sëriñ bi santaane ne jox naa leen ndigal ngeen wéyal liggéeyu mag liggéeyu mag bi dangeen ko daa defe ci lañ door a tàmbali ndaje yi nag di ko def liñ ci war a def am na ci ndaje moo xam ne jàll na sëriñ Ousmane moo ko jiite woon ko baaxoo ànd ko préfet bu Mbacké ñu def ko nañ ko nañ ko waroon a defee séntu ci it lañ ci daa séntu te ji itam gouverneur taxawalaat ko ci ndigalu kilifa bi nga xam ne ñoom la fi teewal tàmbalee ko ci ministre de l'intérieur moom bi nga xam ne moo ko jox ndigal mu taxaw ko moom itam mu def ko nag ci ndigalu président bi nga xam ne ci ndigalam la ko defee kon ñoom ñu ngi leen di rafetlu jasaay bi itam ñu doxee. di ñaan itam ñu àgg ca màgg ka jàmm te suñu borom dimbali ñu mboolem li ñuy tiit ak li ñuy ragal yàlla mosuñu ci te suñu xel war ca dal bu baax a baax war a dal xel yi mooy euh, yaakaar ci ndimbalu yàlla waaye yaakaar ci euh, pëstéef ak ndimbalu Sëriñ Tuubaa ngir xam ne sëriñ bi kat lépp loo ko sëf te defe ko pëstéef ak ngëm daan la fekk si ci loolu kon ñu ñaan ñu àgg te lii nga xam ne moom la adduna sépp ragal muy mbas mi nga xam ne suñ borom ci coobare moo xam li tax mu def ko fi yàlla jeexal ko wéradi gi nag xam ngeen ne gàllankoor na lu bare bare ci adduna ba tax na sax màggal gii bi ñu koy waaj lépp loo xam ne xam nañ ne mën na andi lenn ci gàllankoor ngir teg fi àdduna toll ndax dañoo nekk ci biirum réew seq ko ñu bokk réew mi nekk ci biir àdduna yi seq ko waa àdduna kon mënuñoo bett ko ni ko Cheikh mu Mountakha di waxee looloo waral eh, lenn ci ndaje yi nga xam ne sax daa lañ ko def te xam ne mën naa jur fitne wala ay jàngoo bi ci juddoo yooyu sax wàññi nañ ko mooy lu mel ne colloque international bi nga xam ne par ñeenti at lañ ko def ren ji yàlla def na ngir xam fi àdduna toll tax ñu soppi ko def ko ci xarala yi ngeen di tudde léegi visio conférence nga xam ne ñii dañu nekk Sénégal ñi nekk Arabie Saoudite ñi nekk Iran ñi nekk Irak ba Syrie ak réew yu bari ba Amérique France am na ñoo xam ne conférence noonu lañ ko doxale kenn ku ci ne fa nga nekk di ko dund ba mel ne ni nga ko daa defee ndax màggal gi itam xam nañ fi jamono toll waaye nag wuruñ ca àgg itam te lañ ca daa jar ñoo di manqué ndax yaay yëpp mën na mënees na ko sàmmante kon Cheikh Mouhamadou Mountakha ku ko xam ku ne xam ne na ko kilifa bu njëkk yaa daa defe rek ca tànk yooyu jaar moom bi wéradi gi xewee la Serigne Touba waxoon ca bés ba la waxoon mbindeefum yàlla la yàlla mi fa wàcce waxtu bu jaaxle mu jeex kon képp ku gëm yàlla yëpp dangaa war a ko ci loolu xam ne suñu borom moo ko doxale noonu ndax moom mi ko fa wàcce moo xam ne tax mu wàcce ko fi ndax yàlla kenn du ko laaj lu tax la ko ca war itam la ci jëkk mooy ñaan loolu itam def na ko waxtu wu nekk mag ca di ko santaane yëpp ndax ak euh, ab jullit addu'a silaaxul mu'min ginnaaw ba loolu jàll itam li nga xam ne adduna da ko indi te lislaam santaane ko ndax ne ko sëriñ bi waxee rek walaa tulquu bi aydiikum ilaa tahlukati loolu lislaam moo ko santaane kon ab jullitu xaru kon sëriñ bi lépp lu mu def da koy natt ba mu dëppook sariya mu wër ko ne lii sariya moo ko ci sant ci diineem te du yàq mbirum àdduna waaye nag suñ digg ak suñ borom moom moo jiitu ndax loolu tax yàlla wàcc ñu fi kon sëriñ bi loolu la jiital waaye xam ne itam wàllu ko adduna bi suñ borom moo ko indi ndax dafa indi kilifa diin indi kilifa adduna kon li nga xam ne nguuru Sénégal tëral na ko te ànd ko waa adduna ñëpp maas yi loolu itam sëriñ bi ni ko docteur yi waxee mu wàcc ci ñoom sëriñ bi dafa santaane ne ñëpp jëfe loolu yëmu ca ndax yëmu ci wax kese waaye da ko boole ay jëf jëf ji mooy ba wéer digg tàmbale yëkkati lam ci man ngir xam ne lu jëm ci Sénégal gépp état bi ñoo ñooy seen jiit mu jël ko teg ko ci loxol ki jiit réew mi ngir xam ne la Cheikh Mouhamadou Fadi Mbacké daa wax ne doom bu sax ci sot la bokk loolu la ci jublu ngir bëgg wane ci yoon ngir ñëpp roy ko ci xam ne lii kat ñëpp war a boole seeni doole ak seeni pexe ngir yàlla suñu borom jële ko fi yëmu ci itam tàmbalee ko ci Touba mboolem lu ko waroon ci ay ndimbal ci dëkk bi li ko wër yëpp mu yëkkati alali boppam tasaare ko séddale ko ba sant ko taalibe suñu Touba yi ak daayira yépp ak seex si ñëpp marché ci kenn ku ci ne ña nga tane nga dimbalee ni ko alxuraan santaane li yunfiq su saati min saatihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq ma ataahu kon nag sëriñ ko xam responsabilité kon lépp lu ko waroon ci wér-gu-gi gis ngeen ba nëgë ni lépp itam gis ngeen ba nëgë ni li mu santaane bu ñu julli nañu soriyante ak mboolem jàkke yi nga xam ne aju na ci moom kon moom pour que ëpp responsabilité ci réew mi néew fi kon bu sañoon taalibe yi ak jullit yi ak ñi dëkk ci réew mi ñëpp wér ba sañoon ñëpp nekk ci jàmm ndax seen jàmm ak seenu wér moo jàmm moo tax sëriñ bi doogu gi mu ci am ak lim ci santaane sëriñ bi bëggut feebar bi di law ci àdduna si kon Cheikh tax Mountakha bëggut lenn luy indi feebar bi law moo tax waxtu wu ne muy fàttali nit ñi di leen wattandikuloo lépp loo xam ne mën na andi jàngoro ji wàllaate kon loolu itam na ko ñëpp xamal noonu yëmu ci it ndax euh, dañuy wax ne sunna mooy lépp loo xam ne rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wax na ko wala mu jëf ko wala ñu jëf ko ci kanamam te weddi ko sëriñ bi nag yëmu ci wax waaye dafa wax ñëpp di dégg yëmu ci mu jëf ñëpp gis ndax ku ne xam na ne bu ngeen gisee mu jël masque yi di ko takk lépp li mu ci julu mooy wan nit ñi aw yoon ak wan leen fi ñu war a jaar te loolu itam yaakaar naa war naa am jeexit ci ñëpp xam ne ndegam sëriñ bi nga xam ne mooy suñ kilifa moo bët moo moo ko jël di ko jëfandikoo kon aw yoon la ci képp koo xam ne war nga ko ma def nga def ko kon ni mu ko defee ni la ko sant ñëpp képp koo xam ne mën ngaa jël masque yi di ko takk. ñi xam ne nag xëy ne am nañ ci gàllankoor ndax ñoo xam ne tax nañ jël kaala di ko muuru ndax laa darara wala dirara doo lool te doo lool keneen loolu kon sëriñ bi mi ngi ci soñ ñëpp di ci sañ soñ bokkiteel bi nga xam ne euh, xam ne màggal gi bu soñoon ñëpp dañ fi indaale ak wér te bu ñu fi jugee itam euh, ak wér topp kon loolu itam li nga xam ne euh, médecins yi ak docteurs yi. santaan ko xool ba xam ne lii mooy lii waral loolu na ci ñëpp maase ci góorgóorlu ji wattandiku ci ba ci biir loolu sax waa daayira mu xaddamatu xidma incha allah ci biir jumaa ji nga xam ne xam ngeen ne mooy barab bi ëpp fu nit ñi daje di fa seere ñoom seen yitte seen xariñ incha allah ñoom taxaw nañ ci ba xalaat ci bu baax ba fas na yéene tërale ko noo xam ne ñépp danañ siyaare te danañ sàmmante li nga xam ne àdduna indi na ko waxtu wi laaj ko kon nag ci biir loolu rek loolu mooy soññe yi nga xam ne ndax màggal gi dafa dikk ci contexte boo xam ne suñ borom a ko tudd noonu waaye rek ñu nga rafet njort rek ci ne bu bu màggal gi jàllee rek suñ boroom mën na fee doxee lépp tàggoo fi dem ba faaw kon dañ koy ñaan te ci ñaan ndimbalam ak yërmaandeem di sant nag. président Macky Sall ci cant gi ndigalu Cheikh Mouhamadou Mountakha démb la ma waxaat ne naa ko jot li cant cant gi li ko waral mooy bi màggali Tuubaa gi jàllee daaw ba ba gàmm ba mat ñaar fukki fan sëriñ bi damay yónni ci moom yaari mbir benn bi mooy wàllu ndoxum Tuubaa ndax daaw màggal gi ndox mi dafa manqué te xam ngeen ne màggal gi at mu jot nit ñi di ñu yokk kon waris na ci def yitte ngir xool nu ñuy fexe ba déwén nam demee mu bañ mu bañ ne demewaat ba ca des it mooy ku ne xam na ne màggal gi dugg na ci génn na mbedd Tuubaa yi bari na ci loo xam ne day tax état bi defoon na ci fukki milliards waaye Tuubaa dafa rëy la koy defal assainissement dana mat téeméeri milliards wala mu ëpp ko kon da ngay tàmbalee fenn di dem sëñ bi. yónni ma ca moom ñaar yooyu mu bokk ak yeneen yitte waaye yooyu mooy li ci gënoon a jege màgg bi ba mu ko ko waxee itam mu def ci yitte yitte ji mooy fa saasa la daal di joxe ay ndigal ndigal yi bi ñëw na tey mooy ñeenti forage yoo xam ne incha allah bu àndee doolu suñu borom balaa màggal gi dana àgg ak yeneen i seetlu yoo xam ne ñu ngi koy defaraat boole ci it juróom fukki kilomètre ak juróom ci réseau bu bees boo xam ne dana dugg ci biir ndox mi ngir loolu gëm nañ ne dana soppi lu bari ci ndox mi waaye ci biir wax ji moo xamal ma ne Touba ndox mi dafa am li ñuy wax plan directeur ñoo xam réseau bi ndax li cëpp dafa yàqu kon danaa wut benn cabinet mu def étude xool réseau bi ñu xool ni ñuy saafara ndoxum Touba ak ndox mu neex mën fee ñëw ak ndox mi bañ a màgg loolu itam dox na ci jéegu ba wax nañ ma ne ki nga xam ne mooy cabinet bañ jox liggéey bi ci weer septembre bi daa tàmbali liggéeyam loolu itam kon def na ci te def ci pëseef def ci taxawaay kon sëriñ bi ko ci sant bu ba ca des it mooy wàllu assainissement bi assainissement bi itam assainissement bi jëm ci wàllu ndoxum taw bi fa saase it la jox ministère bi ko war ñoom itam def nañ ca lañ ca war def ba jël budget bi 23 milliards boo xam ne ci ndox ci assainissement Touba la jëm bokkut ak assainissement bi jëm ci fosse yi ñu doon wax ci fan yee waaye bii ci wàllu taw bi la yàlla def na itam ñoom lañ ca waroon def def nañ ko ca waroon naa tàmbali sax laata màggal waaye bi mbas mi xewee nag mu am ak yeexte ndax xam ngeen ne loolu àdduna sépp la loolu itam waaye incha allah bu màggal bi jàllee ñoom danañ ko danañ ci jublu ngir àggali liggéey boobu te itam bu àggee daa doon loxoom xam daa doon loolu nag bokkut ak tëli yeeg yeneen yi ci des ak làmp yi nga xam ne senegal gépp loo ko def waaye beral na ci Touba wóorul ñaari milliards loolu itam sëriñ bi ko ci sant bu baax di ko ndox mi itam def na ci ak ñaar ak téeméeri kon loolu jéego bu rëy leer sëriñ bi ko sant bu baax di ko gërëm ndax euh, sëriñ Abdoul Ahad Mbacké daa wax ne du sant ku ma deful dara kon lépp loo xam ne sëriñ bi gis na mu manqué ci dëkk bi ndajaam xam na ne bu waxee moom mu digg ko te lu mu ca mën dana ko jëlal moo tax lu mu ci yëg xam ne manqué na wala war na ko def sëriñ bi dana ko ko bëgg ko waxee itam saasa la mu ca mën ko ndax man ñi ne ci diggante bi xam naa kon ñu ngi sant ñëpp diggante ñëpp di ñaan màggal gi nga xam ne ndigalu sëriñ Tuubaa la ñu àgg ca jàmm génn ca jàmm day ca tawféex day ca ndimbal te ñëpp it nañ ci ànd ak dalum xel ànd ci rafa jot ngir xam seigne touba Tuubaa kat eh, ngirum suñu borom fegal na ko ci aafatu ak kon suñu xel wala ci seen seen bi di Diawfal Fara li tax juk moy xam xamle serigne bi xam it njàngaleem serigne bi bu ngeen bëggee abonné ci Diawfal Fara dem leen YouTube ngeen bind Diawfal Fara bu ko defé ngeen dal di bëss cloche bi Diawfal Fara ñoy ñaanal sëriñ Mountakha Mbacké bashiru mu yagg fi lolou te andek wër